thank you nekk une grande comédienne joué pièces yi nga xamné bokku na ci pièces yi gëna a mag ci histoire u théâtre bu Sénégal pièces yu ci melni aw buuru këram Kumba Ndax Samba Ndax Baara mu bokku tamit ci groupe théâtral bi nga xamné mi ngi nek ba Saint-Louis mom mu nek une grande comme ni ma koy waxee une diva de la comédie sénégalaise mom moy Néné comé mom lañ seet ci tay gannaaw bi ngeen xamé ni domam rendre nako hommage sargal nako ak ki nga xamné moy mooy Seck fële ci Grand Théâtre ñu ñëw seet ci ko mu wax ñu ressenti wo ressentiment am lan la euh bi nga xamé ni sargal leen ko ba paré fan gis na fan la ko sénégalais yi teg ak fu mu tollu ci ñom ñu ñew seet ci ko euh, maman nee na Kome ñu ngi lay nuyu. ma fi ma ngi leen di fay di leen sant di leen sargal di kontaan ci yéen di leen remercier aussi le fait de vous déplacer di ñëw ba fii di ma seet ci ma kontaan ci lool. sargal bi passé na. deug la jeex na de machallah lu la nuy tàggu na la eh. seeni rek mo metti mais bu accès ba jall rek jall na naka nga gisee sargal bi. kontaan ci trop ça me va droit au cœur sama doom xool ba seppali ni ma dama lay defal hommage man ko non je pas doom hommage bu ko fi tudd de mun ma waa kon du hommage sargal waaw boo demee ba nga xam ne am na loo xam ne ne sama doom xool na ko ba nee na ma yow xamuloo sa bopp man xam naa yaay sama passeport yow yaay sama laissez-passer man nag man xamoon tolluwaat noonu ci doom ci ci doom ci àddina bi mais keroog bi ma ñëw Grand Théâtre sant naa yàlla sant rasulullah sant yi képp koo xam ne déplacé nga ñëw parce que quand j'ai sa ce monde vraiment sama xol dafa tooy man foogu ma woon mel naa noonu ci nit ñi mais may sant yàlla rek te nag damay dellu nag di santaat di gënaat jàpp nag wax dëgg yàlla waaw. Euh, ba mu la njëkkee wax loolu fan la la ko waxee ak est-ce que d'accordoon nga ba mu la lay saa. d'accord bi mu la sargalee ñan ñoo ñëw wuy si la taxawu la ci sargal bi gannaaw paase na ñan ñoo nekkoon ci ginnaaw ñu ci jàpp. ah ñu ci jàpp waa waa jàpp nañ ci Oumar jàpp na ci ministère de la femme mais ñi ci jàpp bare nañu am na ñu répondre ñoo xam ne xëy na yaakaaroon naa ko. foogoon naa ni daañu mais xëy na aussi c'est pas tard aussi j'attends toujours. yaa ngi leen di xaar. le président de la République, pourquoi pas, et sa dame, Mariam Faisal. Waouh, on allait. On m'avait mis en rapport avec Madame Beng. Madame Beng, je décroche le téléphone, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à la joindre, Madame Beng. bari na ñoo xam ne bind nañ leen ñoo eu ne ñu bari répondre ñu daal waaw waaw. mais mën nga ñu mën nga ñu expliquer stress avant événement bi naka la demee woon stress avant. non man commence bi stressé woon naa. waaw parce que nga ma xajul ci gàcce dama ni ko def naa vingt ans de presse musuma am benn kiw déception man ko mu ni moom ci boppam moom mu rassuré ma ni ma man dama ko def pour yow bu ci yàlla àndee man kaa mun ma dina am bu amul rek nañu xam ne yàlla àndu ci alors bi ma waxee loolu ba pare rek nag ma daal di nag kon lépp ngi ci loxo yàlla su amee rek yàlla su amul tamit ma xam ni yàlla li mu wax dëgg la comme dafa jóg boobu man ko nag bu dee lii man ma tax nga wax loolu di def loolu man ki yalla la yalla jàppale yalla la yalla tété c'était un peu dur quand même metti na parce que organisation Sénégal dafa metti ndax ci ñi koy yaakaar toujours du ñom ñoy ñëw di la et puis d'al, amona fay touti ci organisation bi comme mom new fi xamul lu bare mais quand même alhamdoulillah li nga xam rër réer na ko bi yoon su dee dem na di defaat lanen dina ko xam

waaw euh, ñi nga xam ni ñoom nga daan defandool comédie ca booba ndax ñoom groupe Baara Yego ñëw nañ jàpp nañ ci. waaw Marie leen ñëw na ku nekk gis nga Marie leen gis nañu sama wujj ba Nafi Samb gis nañu Seynabou Diop moo doon Nafar Titi gis nañu laay Ndiaye gis nañu ki nga xam ne moo woyoon gay nga boof ci buntu kër ga ànd ak muusu ndaw mi suñu géwal troupe bi alors ce qui veut dire troupe rajo Ndar wuyu si nañ ma et ils ont fait des yoo xam ne yàlla dafa def xëy na mu jàllul. mais daf ñom ñëpp waa Ndar ñëpp def témoignage vraiment ñëpp témoigner waaw euh gis nañ aussi ki nga xamni mom moy mooy sek sa doom mom la jëloon pour mu teug affaire bi naka naka la naka la démé ak naka nga gissé euh, wuy ci bim la wuy ci ak participation am. ah sama doom xol la lool dafa yag ndax ba ñu daan wax dañ daan wax euh, guney Wally man bi ma nekkee bi ma nekkee Luxembourg bu xale yoo xam man leen man maay mama waaliye ba xale di wax naan mama waaliye baab jenn waaliye man leen man maa bëgg waali xam nga lu tax dafa am jomm xam nga boo nekkee xaleel am jomm am dara bëgg ko jàpp ci dafa am jom te dafa bëgg yaayam man ku ma gis nga bëgg sa yaay ma lay bëgg barke sëñ Babacar Si waaye lu mu wax ni sama yaay sama yaay sama yaay man leen xale buy dem la te nag ma teel koo gëm ma teel gëm ni waali day dem bi mu jëkkee def ngéwal Euh, man ak benn xaritu papam ku ñuy wax vieux Guèye ñu ma waay déggal xale bi man kii day dem mun ma waay kii mën waay waaye kii man ka day dem xale bi day dem maag vieux ci ñu ko njëkk gëm la bokk macha allah am xale yu ko buggoon tamit ñoo xam ne ñu ngi woon aéroport sonal ma sonal ma sonal ma waa li nga xam ne ku woyof la bi ma ko woowee ni ko ñii dañu laa bëgg sopp la mais dañu jël dem ba foofu dem ba aéroport rendre visite ñooñu ndeysaan waxtaan xale yu kontaan mu nangul ma lol ci mu na ma ko bañ nangul mais mu nangul ma te fàttewu wuka muy xalé bu baax dama koy ñaanal yalla te xam nga ni may na ma billet màkka nee na ma may na la billet makka may le devise may le terte xana kon àgg naa màkka ak nga màkk mais lan lan ak lan mo génn fofu a part biir makka bek devise bek terte bi ñan ñoo indi sen participation bu reuy ci ki bi parce que xam nañ ni que euh, ñi ñew japp ci si bëri na. waaw participation bi mom vraiment dal bu suwaali mom gis naa participation wala ak samay doom samay doomu sœur sama famille famille Sow dañu ma satala satal satal ba sama xol dafa tooy famille Fall dañ ma satala satal ba sama xol dafa tooy ndax ak waa kër famille Diop sama famille ñoom ñëpp macha allah dañu maa jàppale dañu maa seconde bu ma demee ba bëgg dem kii sax nga gis ñu nekk États-Unis woo ma looy tiit bul tiit lii day baax nangam nangam ma daal di toogaat daal di kilewaat daal ni daal mujj gi daa man yow daal yàlla dénk naa sama bopp yàgg yonent bi ak sëñ Babacar si man ko bu naree baax si Malick yàlla na yomb metti na ba pare nag mais bu naree baax yàlla na yomb teg naa lépp ci sa loxo te kii fu ma ko woo mu ma ku gëm laa euh sargal bi euh, ñi ngi doon xaar peut-être ñu gis ben li nga xamné moy dañ koy diffuser en direct euh, comme yow RTS nga nekkoon ñu ngi leen doon xaar ak ñeneen ak ñeneen mais gisuñu leen. RTS quand je suis allé là-bas dañ ma arrêté ci buntu bi ni ma du ma dugg. ah, ah oui j'ai fait 14 ans woo secrétaire directeur waxtaan nañu ma ngi mom yonena ki directeur personne n'a répondu j'ai pas eu de réponse j'ai tout fait j'ai pas eu de réponse duggoo ba tey fa dañu ni ma nee ñu c'est des instructions yo xam dañ ko jot Bima waxe gendarme bi ni ma mère xam nañ la de xam nañ fi nga do liggéey mais dañu ay jot ay instructions yu ñu jox Dal waaw man leen man dama ñëw pour gis directeur man leen mani gendarme bi yow boo doon liggéey nekkoon gendarmerie bi retraité soxla kayit ci gendarmerie bi bo ñu la doo dugg dana neex mu ni way man du ci man man dañ mako sante. Dañ leen sante. waaw dañ leen ko sante. ce qui veut dire gisuma directeur

waa RFM waxuma wax waxuma nag Birane moom def cee dem ba jeex takk te ku ne gis nga ni waa ci waa waa TFM niñ ci jàppe may di ñaan TFM yàlla nekk ay TFM TFM TFM Youssou def ci boolewul ki ñaan li muy liggéey daf ko bëgg yàlla ko yàlla jàppale vraiment di nuyu waa Luxembourg yëpp Luxembourg mooy sama deuxième ville xale Luxembourg gis naa seen yóbbante dama ci kontaan dañ ma jooyloo sax ndax vraiment Luxembourg rek fii sore na mais dafa am ku ñëw exprès vraiment ñëw ñu jàppale ma dimbale ma may gërëm li ma ko tegaat ci loxo Ndeye Mbacke soxna Ndeye Mbacke may wax rek maa ngi gërëm Luxembourg gépp te xam ne kontaan naa ci ñoom vraiment waaw ma famille comme je t'avais dit tout à famille Sow sama waa kër lañu famille Fall sama famille waa Taal ak jóob ñëpp waaw Wally Seck comme li ma la ko waxee gërëm ko sant ko sargal ka ndax ko dem ba di la woon yonent bi booba deselu la dara may ñaan yàlla na ko yomb ci barke salaatul fatiha sama mag sama xarit di sama taaw di suñu caat ab Ablaye Kobe fu ma toll mi ngi ci sama wet mi ngi may seconde may ñaan yàlla na sut fan baayam yàlla na sut fan yaayam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam a kanam a kanam kanam waaw ak samay doom samay doom jey na ba nelawatul toogatul jëkkëram Ibou Dieng waxi noppi sagal ma sargal ma Laurent jóge ba Luxembourg bàyyi liggéeyam ñëw boobu ba léegi mi ngi fi xamul lu xew këram laay jaay waxi noppi laay njaay ci tur bi la bokk ñoom ñëpp ci lañu bokk dégg nga waa ministère de la femme ak honorable député nday Marème Ndeye Marème Guèye kooku mooy jabaru Mansour ba ca Ndar may kontaan ci moom di bég ci moom di ko ñaan honorable député dama bég ci moom yàlla ko yàlla jàppale maa wax loolu bu Dieng wax naa ko bu Jolof wax naa ko euh, ah nee na Fanta waaw pareeguma ak abu abu dafa daggal mari Marie leen Luxembourg ba fii mu noonu ko ci ba jàppale la ba tey ki jàpp daggal la billet Luxembourg ba fi nga ñëw assisté yëpp ba tey Abou Traoré may kontaan ci moom di ko ñaanal fantas moom dafa tuxu mbuur rek ñëw dëkk si fii bañ na ba lañ doon wax ni moo yor sama communication muy sama doomu frère jàpp ci bu baax ma koy ñaanal stage ki mu ngi raani haaraani edo moo dee laa bi moo di ma bég ci moom di kontaan ci ñëpp képp koo xam ne rek jàppoon nga ci maa ngi bég ci yow ma seen